yonent yàlla Muhammad moom Cheikh Tidiane dafa gis yonent yàlla Muhammad yonent wax Cheikh Ahmad Tidiane ne ko yonent wax Cheikh Ahmad Tidiane ne ko defal ma Ali Harazim sama xalifa fal naa Alaaji Ali Harazim sama xalifa Cheikh bëgg na Alaaji Ali Harazim wante xew-xew boobu da ko bet mu ne ko nga ne mu ne ko fal naa ko sama khalifa kon dootul mën dëkk ak man kon dootul ak man de mu ne ko jàmm ak jàmm na dem lolo génne alaji ali alasim mu baye ko fas dal tulisi jaar jaar misra dem màkkatal mu karam dem badar fato fa kon na su ko defee nit ku bëgg lu bax dayro ci ali alasim nit ku bëgg lu baax day roy ci alaaji ali arasim nit ku bëgg lu baax te mooy taalibe day roy ci alaaji ali arasim wàññi fiiraange yi wàññi yu bari ci suñu diggante sëriñ si toujours mën na leen Mouhamad ibn Misri jiite na Cheikh Ahmad na Cheikh Ahmad Tidiane Sarif julli juróom at yu mat ndax fiiraange ndax fi ndax fiiraange taalibe yi. benn dëkk dañoo siyaare si. benn dëkk dañoo siyaare si. Cheikh Ahmad Cheikh Ahmad Tidiane Chérif. li daloon Seydina Aboubacar Sadiq. li daloon Seydina Aboubacar Sadiq. Abou Ubayda ibnu Jarrah. ci Abou Ubayda ibnu Jarrah. dal ibnu Misri yi. dal dal ibnu Misri yi. ci waa dëkk booba. ci waa dëkk booba. ñu ñëw rek. ñu ñëw rek. mën leen Cheikh dafa jàpp. mën leen Cheikh dafa jàpp. te Cheikh jàppul. te Cheikh jàppul. te moo ne moo dëkk biir kër kilifa yi. te moo te loolu nag moo sax ci biir kër kilifa yi. yàlla ko yàlla. yàlla ko yàlla. ñoo ne dem ñibbi. ñoo ne dem ñibbi. yonent bi. yonent bi xamal Cheikh Matiane xabaar bi. xamal Cheikh Matiane xabaar bi. Cheikh eh, ne ko ne ko daggale ci tariqa bi. ne ko daggale ci tariqa bi. boo liiree téere bi ne euh, Maqsad al Masahib. boot boot yëlanteel bi ñuy wax almasahid nga xam ne alaaji Aliou Haraasi moo ko bind nga xam ne alaaji Aliou Haraasi moo ko bind danga fekk lii ma lay wax danga ci fekk lii mu lay wax même boo lee boo liiree kasful hijaab même boo liiree kasful hijaab Ahmad Sukayri bu Ahmad Sukayri danga ci fekk lii mu la wax yonent bi yonent bi dagg Aliou Haraasi ci tariixa bi dagg ibnu Misri ibnu Misri ci ndigalal yàlla. ci ndigalal yàlla. ndax tariqa bi caaxaan daggu ci nit. ndax tariqa bi caaxaan daggu ci nit. Mhm. tariqa bii. tariqa bii. ku la wax ne dagg naa la ci tariqa bi. ku la wax ne dagg naa la ci tariqa bi. ku la xamul tariqa bi. ne ko xamul koo xamul tariqa bi. Mhm. tariqa bi nekkul ci loxo Seexu Tijaan. tariqa bi nekkul ci loxo Seexu Tijaan. nekkul ci loxo yonent. ci loxol yàlla la nekk. ndax tariqatul ilaahiyatu la. ndax tariqatul ilaahiya. yàllaa ko moom. yàllaa ko moom. yonent moomu ko. Seexu Tijaan moomu ko. ba mu ko ci daggee. ba mu ko ci daggee. Cheikh Ahmad Tidiane moo toog ba mu yàgg. Cheikh Ahmad Tidiane moo toog ba mu yàgg. mu gis ci xaybu. mu gis ci xaybu. xam ne tey. Aliou Racine. Aliou ak Aliou Harasim. ak Seydina Mouhamad ak Seydina Mouhamad. ak yonent Yàlla Ibrahim. ak yonent Yàlla Ibrahim. am na benn mërsat bu ñu am tey. am na benn mërsat bu ñu am tey. yonenti eh, eh, Cheikh Matiyani. Cheikh Matiyani. yóbbante. yóbbante. alaaji Ali Harasim. alaaji Ali Harasim. bu ma sëg ba yeggee. ne ko bu ma sëg ba yeggee. ñaanal ma yonenti Yàlla Ibrahima. ñaanal ma yonenti Yàlla Ibrahima. mu ñaanal ma yonenti Yàlla Muhammad. mu ñaanal ma yonenti Yàlla Muhammad. mu ñaanal ma boromam. mu ñaanal ma boromam. mu dellool ma. mu dellool ma. Muhammad ibnu Misri. Muhammad ibnu Misri. ci tariqa bi. ba ma sëg ba amee. ba ma sëg ba amee. ba daje bàyyi tas rek. ba daje bàyyi tas rek. Aliou Racim. Aliou Racim. sukk ci këram ci yonent Yàlla Ibrahim. ne ko sa doom Ahmadou Tidiane. yóbbante na ma ci yow. nee na nga ñaanal ko. sa doom Seydina Muhammad. ne ko mu ñaan boromam. mu delloo ko. Mouhamad ibn Misri ci tariqa bi. ndax gërëm na ko. ba ko yonent bi ñaanee. ba ko yonent bi ñaanee. wala ba ko Ibrahima ñaanee. ba ko Ibrahima ñaanee. Seydina Muhammad def ko ne soo ko ñaanuloon du ma ko delloo ci tariqa bi waaye delloo nañ ko ci tariqa bi. na ñëpp xam loolu. na ñëpp xam yi yaatal ko ci jaami yàlla yi. ubbi yi yaatal ko ci waa tariqa bi. ubbi dënn yi yaatal ko ci mbokki taalibe yi. parparloo bi bàyyi fiirante bi. bàyyi soxoraante bi ñu xam ne ñun ñëpp ay jaami yàlla ñu xam ne ñun ñëpp ay jaami yàlla lañu ñu xam ne ñun ñëpp ay taalibi ñu xam ne ñun ñëpp ay taalibi tijaan lañu Cheikh Ahmad Tijaan mooy suñu sëriñ te moo waxoon ne ana seyku min al ila al man maa fi nekk maay bi kon nag yal na sutura defal ñu kàttan ci fu ñu mën a te tàqale ko ak yëg suñ bopp ak iñaan ak rëy ak ak ngistal ak ngistal baaxul ci doomu aadama baaxul ci doomu aadama yal na yàlla musal ñu ci nee na tooma am kebaa dimbalaan moo say gan yëpp kontaan nañ ak gi kër yàlla yokk seen lépp. yal na yàlla yokk seen lépp. man de samay samay mbokk lañu. nee na moom de ay mbokkam lañu. te na naa leen ni ma gëmee seen baay. te gëm na leen ni mu gëmee seen baay. ak seen ma ak seen mag. bu dee Alaaji Abdoulaye. bu dee Alaaji mooy papam, ba sëñ Babacar mooy papaam. gëm naa ko ni ma ko gëmee baay. gëm na ko ni mu gëmee sëñ Babacar. bu dee Alaaji Saalum Diané la bu dee maam Alaaji Saalum Diané la. rakku sëriñ bi la rakku sëriñ bi la. gëm na ko. ni ma gëmee baayam ni dama ko xam. baayam nag daf ko xam. ba mooy nekk sama kër papaam ba mooy Omar ak Omar nelaw guddi. nelaw guddi. di bu kon nag su ko defee kooku xam na ko yal na yàlla sàmm njaboot gi képp ku fi teew rek yal na yàlla faj sa aajo ci daraja yoon ci yàlla Muhammad képp ku fi teew yal na yàlla may la nga nekk jullit jullit piir képp ku fi toog képp ku fi toog yal na yàlla may la tariqa ba nga aju nga déggu ba nekk ci xaasi tariqa ba nekk ci xaasi tariqa ba di jaay rasulillah di yàlla tàggatal doomu aadama may ko ci kaw ak suuf yàlla bu mu ñu ump ci darajaay yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee na kon nag ngi guddal ngi leen di jéggalu wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf barakallahu سبحانك الله عصلت وأبلغت جزيت خيرا sëriñ bi nee na nga def ñaar waaye mu amoon ndimbalaat dafa wax ne dafa am kàddu yu mu war a sa yu mu jàllale la kon Mouhamad waaw ma kan ah si Omar Kouta wala du Omar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 وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم أيها الإخوة في الله نعيكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته di الله yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di moom lañ fi fekk ñoo xam ne ñu ngi teewee ci jëmmi yàlla ji waaye ñu ngi teewee ci jëmmi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi def tawasul ci sëriñ bi ci kàddu yi nga xam ne maa ngi ko fekk mu ngi koy waxtaanee muy xam-xam boo xam ne lépp leer la lépp aju ci jëmm yàlla soo koy déglu da ngay dem ba yëg ne nekkatuloo fi te wax bu jóge ko ci yàlla jëm ci doomu aadama doomu aadama bi mënut a boppam yàlla rek lay yëg kon ñu ngi lay gërëm ci kàddu yu màgg yu sell yooyu yu bëri leer yooyu eh, fi mu jógee lu bari des na fa kon nag waxtu rek moo ñu tënk waaye fi nga jeexalee sax buñ sañoon dangay ngay continuer ñu continuer di la déglu rek ndax neexoon na ci ñun te ñu ngi doon yëg yàlla ci yëg goo xam ne gëjoon na kon ñu ngi lay gërëm bu baax di ñaan yàlla yàggal la fi te defal la wér nga yàgg di jàngale di jàngale yu mel nii di gërëm sëñ ay ak ayuma yi nga xam ne fekk nañ leen fi ñii ay borom xam-xam e, di di nuyu bu baax e, di leen di jotalil nuyoo monsieur le maire Parcelles Assainies Aboubacar Jamil Sané moom amoon na yéene pour teew waaye dafa nekk ci daje woo xam ne e, réunion la mu seq ko ay kilifa ci réew mi loolu moo doon ngàntam mënut ci ñëw mu ebal ñu ne nañ ko teewal eh, jotal ko nuyoom ak ziaram eh, ba pare tam leen di tàllal ay loxoom pour ngeen ñaaral ko ci liggéey bi nga xam ne parcelle óolu nañ ko ba teg ko ci loxo ngir yàlla may ko ci ndam eh, nee ma nit bu ne xadis yi yonent yàlla Muhammad jàngale na nit ku nekk sàmm la te la ko yàlla di sàmmloo bés dana jot yàlla laaj ko caawa googu nu mu demee mu ne ma su fekkee ne suñ njabooti bopp yi eh, yàlla danañu ko laaj boo xontumaa lu toll ni parcelle ku ko war a yilif su la ko yàlla waree laaj xaw ma foo jëm loolu ku ragal yàlla mooy xalaate noonu waaye ñu ngi seede yi ne ku ragal yàlla la ndax doomi daara la ku ragal yàlla la waaye ko gëm yàlla la loolu mooy sabab bi tax ñun ñu tànn ko imposé ko ñu teg ko fii ci parcelle euh, fan yàlla ci gannaaw nekkee ci campagne euh, dem réunion ci Dakar ñu wax ne parcelle bu yàlla defee ñu gañe ko ville bu Dakar usine bi nga xam ne ñoom am nañ ko muy defar pavage dana defaral parcelle bi mu jëlee kàddu moo opposé loolu moom soxla soxlawul loolu dafa soxla ci parcelle usine boo xam ne dafay defar pavage nga xam ne parcelle moo koy moomal boppam fan yii rek matul ñetti fan ci gannaaw ñu ngi waxtaan mu ne ma balaa mois de juillet usine boobu dina ñëw fii ci parcelle kon kooku am na yéene bu liggéey parcelle kon ñu ngi taataan loxo yi ngeen ñaanal ko yàlla ci barkeeb xam-xam bi nga xam ne moo fi jib ak leer yooyu ak cëkkam jógee ak cëkkam aju cëkkam yi dellu yàlla defal ko li nga xam ne mooy yéeneem fii ci parcelle am nga ñaaro a nga ànd ak délégation Cheikh euh, ak euh, Ali Darame ñoo ànd ñëw maa ngi fi gis suñu frère Moustapha Diop moom it def ñu fi jiitu waaye ci délégation bi la bokk fa tabarakallah ñu ngi gërëm bañ a guddal rek am na yeneen programme yu ñuy xaar euh, ñu war fa àgg ñu ngi gërëm ñu ngi sant wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu